seetlu ngeen ne kenn du wax ci waxu sama liggéey la ñuy wax daal mooy justice bi dégg nga maam dugal fii génnal fële justice bi moo fi mos a nekk depuis l'indépendance magistrats yi duñu ay homme politique ay fonctionnaires lañu yoo xam ni dañuy donner la justice au nom du peuple sénégalais kon loolu waxu ko daanu ci saret la fii li fi am mooy ñu xool région bu mel nu Matam nga xam ne dañ ko fàtte woon ci lëpp yoon yi gis ngeen mu meloon pour ñëw Matam wala nga jógee Matam di dem Séné Dakar dañ la wax maa ngi dem senegal nuyul ñu waa Sénégal tellement amuñu woon benn fulla ak fayda bu ñu leen joxoon Linguère Matam Linguère Daara Daara tuuba Touba ila Touba Dakar tey jii mën nga ndékkee Ndakaaru ñëw añ see Matam sans difficulté yoon wi jógee Ndar jaar Richard ñëw Njum ñëw ciloon loon laata ñu fay yegg si yoon woowu ñu ngi koy tabax ba fii ci Wuro Sogi jóge fi dem ba Kanel jóge Kanel dem Bakel jóge Bakel dem Kidira jóge Kidira dellu Tambacounda trois cent cinquante cinq kilomètres de route pour plus de deux cent soixante quinze milliards de francs